nii ñëpp xibaar yi li ci gën a fës jafe-jafe amat ci ak këru roplaan gi di Air Sénégal ay nit ñu waroon tukki dem France euh, bokk ñoo taggatémbe bi ba léegi ca aéroport ñoom nag amuñu avion bu leen yóbbu. genn góor gu ñu tëjoon te kasa bu Jurbel moo faatu te kenn at tegu ko tax ba kuréel gii di fërëm du justiciable di sàkku yoon euh, di gaaw di atte nit ñi ñu xam fu ñu féete nguur gi taxaw ci wàññi accident yu bëri ñu nemmee ko ci tali bi jiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye sàkku démb ci ndajeb conseil des ministres nguur gi jël matuwaay yëpp yi war ngir karange ci tali bi ci ndajeb conseil des ministres boobu bokk na ci li ci gën a fës euh, wàcce gi ñu wàcce Cheikh Dieng euh, gannaaw ñetti weer képp yu mu def ci bopp kër gi di ONAS xibaaru tàggat yaram chronique culture bi ak li ci yéenekaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne sunu niñ caay fana fàcc amadi Ndiaye moo nekk ci machine bi mbokk ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar suba gi dañ koy door ak ay euh, aji tukki waroon a dem ca France war a jël euh, avion bu Air Sénégal bik lañu waroon a départ ci minuit waaye nag euh, ba léegi demuñu ñi nga te aéroport Tagatembe li ñu leen wax nag mooy avion bu leen war a yóbbu la ñuy xaar ngir mën a dem lañ ci déglu seddey kenn ci ñooñu lay di El Hadji Talla ci jokkoom ak Babacar Fall. li xew fii ci aéroport Blaise Diagne bu jas Air Sénégal moo convoqué ay passagers huit heures euh, zéro heure vingt la avion bi waroon départ bi ñëwee ba dugg ci avion bi toog ñu ne ñu noo avion bi dafa am ay problème ñu ne leen ban problème la avion bi am ñu ne non dafa am oto bu ko waroon xëcc lenge ko ba ci piste bi pour avion bi mën a naaw te oto boobu dafa paanoon ñu ngi koy réparé biñ toogee ba deux heures trois heures du matin ñu jógaat ne leen mais yéen kañ la ñuy dem ci lañ ñu ne léegi sax dañ leen di wax li xew li xew mooy da ngeen di génn ci avion bi dañ leen di débarquer donc ñu génnewaat ñu ñun ñëpp ci avion bi bi ñu génnee ci avion bi nag amul benn agent wu Air Sénégal bu ñu gis à part chef d'escale bi ak benn soxna boo xam ne mu nga fa woon ñu nekk ci ba nit ñi nag commencé coow coow lu bari ba alkaati yi ñëw takk der yi ñëw commencé calmer léegi nag boobu ba léegi du reer buñ ñu jox du añ buñ ñu jox du lekk bu ñu jox te am na ñoo xam ne ay xale yu tuuti lañ nekkoon ci biir avion bi am na itam ñoo xam ne dañoo feebar ay mag lañ am ay jabet donc finalement c'est vers six heures matin la ñu jël jox ñu ay ticket pour ñu ndékki ba ñun ndekki ba ñuy ndékki nag la ñuy wax ni léegi décidé nañu avion bi dina dem onze heures tey jii te ba léegi loolu itam day nekk loo xam ni tànk amul mënuñu koo gëm parce que avion boo xam ne démb la ki guddi la waroon dem ba tey jii onze demul donc loolu itam nekk na loo xam ne daf ñoo def jaaxle gu rëy fii ci aéroport Blaise bu jas loolu daal moom moo fi xew ci Air Sénégal. mu nekkoon El Hadji Talla bokk ci nit ñu ñooñu waroon jël avion Air Sénégal ngi dem ca France bi ba léegi nag ñu tàggatem bi foofu lay ca aéroport wax ci accident diggante ñaari moto Jakarta ñaar nit euh, kenn ñàkk ci ba kenn ñaar jële ci gaañu gaañu ñaari moto Jakarta ñoo mbëkkante ci Linguère ñenn ñi kenn ci ñi nga xamante ne ñoo ci jëlee gaañu gaañu métti la benn soxna la boo xamante ne daal dinañ koy rawale ci hôpital Cheikhul Khadim bu Touba keneen ki moom daal nañ koy yóbbu ci hôpital Magatte Lô bu Linguère accident yooyu sax ak ni mu bëree fan yi nit yi di ñàkk seen bakkan daal di soxal lool njiit réew mi président Bassirou Diomaye Faye waral ba démb ci ndajeb conseil des ministres mu sàkk ci premier ministre ah, ci nu mu gën a gaawee ñu amal ndaje boo xam te ne jawriñ yi ñoo koy seq ngir day saytu na fexe ba jëli matuwaay eh, da su ko defee nag eh, kaaraange mat ci tali bi ci jamonoy màggal Tuuba ak tamit jamonoy gàmm gi ñu dëgmal ci conseil des ministres boobu léegi bokk na nag ci la ca fës di wàccee gu ñu wàccee directeur général bu ONAS Cheikh Dieng nga xam ne nag avril lañ ko tabboon mu daal di tàmbali liggéey bi 13 mai moom nag tam ki ko wut nag di seeni Dieng ki nga xamante ne nag mooy moo du Diagne di contrôleur général de police moom nekk secrétaire permanent bu comité interministériel le lutte contre l'immigration irrégulière commissaire de police principal Ibrahima Dieng moom nag léegi moo nekk euh, daaf di euh, directeur automatisation des fichiers nag euh, nanu tam ki nga xamante ni mooy ñaari seen kon la fa wutu moom moom di Ibrahima Dieng ci conseil des ministres ba léegi président tamit wax wàllum kaso yi ne rafetlu na rapport bu kuréel gi nga xamante ne mooy saytu nekki ñu kaso yi sàkkutam jël matuwaay yi ba nga xamante ne lépp loo xamante ne wàllum métital la ci biir kaso yi dañ ko mën a moytu mu fekk nag jamono jooju am benn góor gu toll ci juróom-ñaar fukki at bu ñu tëjoon ca kaso bu Jurbel moom nag mu daal di faatu yàlla ñëw ci mbiram naka démb euh, moom nag euh, at la at ngi nii ñu tey ko kenn attewu ko waral sax ba kuréel gi di forum di justiciable di koy ñaawlu ñoom nii ñaawlu te yàgg yi te nit ñi ci kaso yi bëgg nag ñu daal di baral mbir yi mën a leen atte dañ ciy déglu njiitu euh, forum du justiciable Babacar Baax ci jokkoo ak Serigne Saliou Seck les longues détentions préventives ñun dañ ci wax waxati ci parce que loolu tey mën nañ ni mooy problème majeur bi nga xam ni moom la suñu système carcéral di jànkonteel ça c'est une réalité et puis yi détenu yi di ko dund nag ci anam bu metti da gis nit ñu koy topp teg ko loxo parfois mun na def deux ans trois ans de détention préventive parce que dossier dafa nekk en instruction loolu c'est pas normal et parfois dañ ci gis ñoo xam ne sax dañ leen di téye cinq ñu jékki-jékki acquitté daal leen acquitté ñu dem te duñu kenn du leen euh, indemniser donc loolu c'est une réalité tey boo demee rëbës ñoo ngi fa am donc moo tax ñun ñuy demande à ce que nañu gaaw appliquer li nga xam tey moom mooy les assises de la justice pour que ñu mën a soulager souffrance bi nga xam ne tey moom la détenu yi di dund euh, en matière de longue détention préventive mu nekkoon Babacar Ba jiite kuréel gi euh, di forum di justiciable di génn ci kuréel yi seetu ak ak yelleefu doomu adama fii ci Sénégal juróom-ñaari minutes moo tegu ci huit heures ca kaso bu Rebeuss ak kaso bu Camp pour RFM mooy bi jaamu seen. wéy ci xibaar yi wax ci leneen wàllum wér garam yaram ak euh, garab yi nga xam te ne euh, pour xeex si sibbiru la euh, Sénégal nag di ci liggéey jamono ji kuréel gi koy yitewoo wàllum garab yi di agence de régulation pharmaceutique ñoom nag génne gëstu boo xam te dañ ko defoon jëm nag ci wàllum qualité garab yi xeex sibbiru ñu def ko nag ci juróom ñetti région di diwaan ci Sénégal bokk ci Dakar liñ gis nag. mooy ci ñaari téeméer ak juróom fukk juróomi garab am na ñaar yoo xamante ne moom euh, jar nañoo moytu ndaxte demewu ni dañ ciy déglu ki nga xamante ni moo jiite woon ba fii euh, agence de régulation pharmaceutique docteur Oumou Kalsoum Ndiaye Ndaw ci micro aw mbay tey dañu fi daje rawatina nag ARP pour que ñu mën di topp garab yi nga xam ni ñoom la ñu jëndi wala moom la ñu jot dugal ko ci Sénégal séddale ko ci 14 régions yi mu nekk ci 79 districts yi nekk ci 45 hôpitaux yi ñu war a xam ndax garab yooyu qualité ba taxoon ñu jox leen autorisation de mise sur le marché qualité ba taxoon ñu am bon de commande ñu dindil indi leen stocké leen qualité boobu ndax mi ngi fi toujours tey nag mu nekk édition ci programme paludisme xam nga moom ñaar fukki protocole ñu ne nag ci ñooñu dañu ciy jël juróom benni doom yoo xam ni ñoom la ñuy dem xooli ndax réellement ñoom ñi ngi fi ba tey bi ñu demee ñu def ko ci juróom-ñetti région li ñu doon wëri mooy ndax garab yooyu ba léegi qualité bi taxoon ñu dugal leen fi ñi ngi fi pour que suba nit ki bañ ko jël te fekk du ko jariñ dara bi ñu ko defee ci ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom échantillon ñaar lañ ci gis ni ñoom daal répondre ñu liñ doon xaar kon daanaka ñu daal di am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci téeméer yoo xam ni baax na ñaar yooyu tamit bi ñu amee résultat yi danoo jël lakk réglementaire parce que loolu la règlement bi wax boo amee ci garab looy jiixi jaaxa téyeegum ko ba nga xool ko ñu daal di def not retirer ñaari garab yooyu garab yooyu nag benn bi moom mi ngi tudd artésunate la c'est de l'artésunate 60 mg injectable beneen bi paluvian la moom c'est de l'artéméter ak mimefantine 40 ak 240 mais boobu comprimé la ay boîte de douze. mu nekkoon euh, docteur Oumou Kalsoum Ndiaye Ndao di directeur euh, bu

famille wu lëm bu tëdd feebar gannaaw ba ñu añee ba pare ceebu yàpp nag lañu togg bu ñu ornee charcuterie mag ak ndaw ñëpp tëdd di xalangu di wax ne seeni biir day metti ca saasa nag lañu alerté sapeur pompier mu ñëw jël si leen yóbbu leen hôpital police ñëw na fa ànd ak service d'hygiène pour def constat bi Mame Diarra Faye moom moo yor lépp lu gestion des urgences de sécurité sanitaire ci ministère de la santé. li ñu doon bëgg wax rek mooy population bi. si jur mën na si dikk bu fekkee ñam bi ngay jëfandikoo baaxul boog nag bu fekkee baaxul tamit il faut ñu xam ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu ñam yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer urgence yooyu lan lañu war def bu fekkee loolu am na lu mu gaaw gaaw bu nga xam ne tat aussi musiba bi daan ko gën mën aar Sénégal nag am na benn plan boo xam ni xeex lépp lu intoxication alimentaire moo ko tax a jóg OMS ak FAO ñoom ñoo ko santaane simulation bi ñu def nag ci Fatick benn la ci activité yi nga xam ne moom la ñuy def ci plan bu ni m Mamadou Ndiaye notamment ci jëm ci sécurité sanitaire jëm ci wàllu ñam ci bureau FAO bi nekkee ci Sénégal. Sénégal nag moo njëkk ci Afrique bu ko am suñu amee këyit boobu nag mais dañoo war fexe nag nit ñi seen bopp ñu leen ci tàggat tàggat boobu nag ci la ñu nekk fi mu nekk Fatick njëkk nañ koo def Thiès am na ñetti at. Sénégal nag ni mi contrôler ñam yi lu système bu baax la waaye nag ba léegi am na ci. ay jéego yoo xam ne war nañ ko ci gën a def Mamadou Ndiaye expert la en sécurité alimentaire ci FAO. am na taxawaay bu dëgër parce que euh, ci wàll wu nekk dafa am euh, benn ndaw bu mu ko dénk. donc service yaa ngi fi. terewul nag am na peut-être ay jéego yu war a def ci kalam. gën farlu ci liggéey bi wala aussi gën koo dooleel. buñ sukkandikoo nag ci direction régionale de la santé nee ñu Fatick nag am na plan boo xam ni mën naa bis bu jafe-jafe amoon ci wàllu intoxication alimentaire daañu am nu ñu taxawee Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby wax ci ngan gu maire bu Thiès docteur Babacar Diop di amal te Sébastopol Sébastopol di dëkk bu nekk ci réew réewum Russie ci loolu nag ay déggoo xaatim nañ ko diggante ñaari dëkk yi di Sébastopol ak euh, Thiès jëm nak ci wàllum wér gu wàllum njàng mi wàllum alam gi ak yeneen ñi di nga xam xamante ne nag ñooy waa si yi ne daañu jàppale Thiès ngirum gën a soqali ko ci wàllu yow dañuy fay feffi fekki foofa ca Sébastopol suñu ndaw Cheikh Anta Diop maire Thiès di docteur Babacar Diop rafetlu lool lëkkaloo bi fas yéene am ci diggante Sébastopol ak maire bu cees ngir xaritoo yaakaar naa ni surtout rawatina jamono bi nga xam ne président de la république dafa tabax benn politique internationale wékku ci ki nga xamante ni mooy intérêt stratégique bu Sénégal ak dignité Afrique bi ñu ñëw fii ci Sébastopol ngir xaatim projet boobu loolee tax docteur Babacar Diop di maire bu Thiès indaale a programme bu mu yuppil gouverneur bi ngir Thiès mën a suqali ko bu baax benn coopération bu ñu war a mën a tabax entre Sébastopol mi nga xam ne mooy troisième ville fédérale en Russie Russie gis nga ni mu mais ñetti ville fédérale moo fi am suñu diggante ak Sébastopol mu war a laal ay domaines yu bari ci wàllu koom euh, ak wàllu commerce demalante ak dikkal mais aussi ci wàllu agriculture Euh, ci wàllu aussi tourisme euh, ci wàllu santé ci wàllu sport et aussi ci wàllu environnement ci wàllu aménagement aménagement avenue bi gën a gudd Thiès di quarante di quatre kilomètres aussi ñu am yéene indi ci seen contribution bu am solo pour gën a yanjal dëkk bi di Thiès gouverneur bu Sébastopol di Mikhaïl Rachevsayev ne nag gën naa jàpp meeru Thiès te it dina def kéemtalaay kàttanam ngir projet yi mu naal mu jàppale ko ci. On voit que tous ces projets sont déggoo lu jëm ci wàllu partenariat xaatim nañu ko fii ci saalu gouvernance bu Sébastopol ci kalamu ñaari délégation yi rax ci dolit gouverneur bu Sébastopol nee na dina may ay bourse jagleel ko étudiants yi ak professeur yi nga xamante ne ñu ngi ci université bu cees ngir ñu mën a dikk fii jàng fi wala ñu def ay recherche fii ci Sébastopol mu nekkoon Cheikh ante Diop envoyé spécial ci Sébastopol fii ci Russie ngir RFM. Cheikh Anta Diop di sa ndaw sa Sébastopol foofule ci réew ma Russie dellu si fii ci réew mi wax lu soxal wàllum daara yi ak programme bu jëm ci jàppale leen ci nag wàllum dund tax sax ñu tuddee ko mburu daara yi di projet boo xam te li ko tax a jóg di lakk mburu su ko defee xale yi am mën a jàpp di ci liggéey waaye itam di am mburu mu ñu lekk ci daara yi dañ ciy déglu Ndella Christine Faye moom nañ dénk projet boobu ay kàddoom ci micro seeni job alors mburu daara yi dafa nekk projet boo xam ne ADL moom moo ko initié euh, jëlee ko ci programme am bi mu tuddee programme de renforcement de la résilience des communautés mi nga xamante ne ni objectif am principal moom mooy nu ñuy wàññee euh, la pauvreté euh, dans au niveau du Sénégal maanaam ci population bi mais aussi projet boo xam ne day viser à aider les femmes en unité de transformation aider aussi les jeunes sur l'emploi donc Mbourou Daaray mu ngi soqeekoo ci programme boobu noonu l'objectif du projet Mbourou yi nag mooy euh, vraiment xeex lépp loo xamante ne nii dafa jëm ci wàllum euh, mendicité maanaam taalibe yi di taxaw ci mbedd yi maanaam aussi projet bi objectif am mooy jàppale xale yi ci li nga xamante ne ni moom mooy approvisionnement en pain ndax bu ñu xëyee ñu mën a am mburu boo xam ne dinañ ko lekk mais aussi jàppale daara yi ngir ñu am euh, koom-koom ndax mburu bi euh, boulangerie bu ku leen ko ADL joxe xale yi buñ ko jëfandikoo ba pare li ci des ñoom dinañ ko mën a jaay askan bi bu ko defee mu mën leen defal ay source de revenu maanaam ñu am ci koom-koom boo xamante ne nii euh, daara bi dina ci mën a jàppandi faj yeneen soxlaam aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy les femmes les les les les les les familles yi nga xam ne dañuy jël xaalis di jox borom daara bi loolu dina mën a wàññeeku ndax borom daara bi dina mën a am euh, koom-koom leneen li tax a jóg projet bi aussi mooy euh, former xale yi maanaam xale yi nga xam ne ñu ngi ci daara bi am plus de quinze ans ñu mën leen former ci mel lu mu di métier boulangerie ak métier euh, pâtisserie loolu daal mooy objectif yi nga xamante ne nii moom moo tax a jóg projet mu nekkoon Marie Christine Faye euh, kon yor projet boobu di mburu daara yi Daniel ak wàllum politique APR ñu seet ne euh, nit ñaa ngi bàbbeeku di fàq di dem gannaaw bi ñu ñàkkee nguur gi niñ ci lim Aliou Sall Cheikh Oumar Anne euh, ak Doudou Ka lan moo ko waral ak lan moo nar a nekk ëllëgu APR tontu li ci gëstu Abdourahmane Diallo ginnaaw bi ñu ñàkkee nguur gi ay responsable yu bari yu bokk ci alliance pour la république dañu daal di génn parti bi analyste politique bi di Assane Samb di ñu xamal ñetti mbir yi ko mën a waral. Euh, su fekkee pouvoir le processus contraire mooy amaat ñu bari dañuy def dafa am ñu ñu si ëpp intérêt moo leen fa andi am lu gis lu leen dig wala lu ñu yaakaar ci des nag mooy comme parti bi aussi perte na dem presque pratiquement décidé génn nekk du fi amul animation interne loolu dafay tax tax aussi gars du ñu am orientation bu leer ñetteel bi facteur mooy affaire moom dafa dafa dund ay réalité yu métti ci wàllu pouvoir bi ñu koy perte parce que seen candidat mel ni sax rekkoon euh, ñu koy jàppale dafa ko xeex ci ñu bëri alors euh, comme amul numéro deux ci nga xam ne def na fukki at ak ñaar ci nguur gi est-ce que am na avenir politique ci réew mi Abdou Lahad Fall di politologue muy tontu suñu laajte histoire récente politique u Sénégal wane na ne daanaka parti bu amoon pouvoir ba ñàkk ko pour mu dundaat day jafe day métti affaire daal euh, saa yi ñu demee élection daal day day gën di wàññeeku lool histoire récente politique Sénégal boo ne léegi par rapport ñu nekkoon biir APR après xëy na dañuy convoqué li Idrissa Seck doon wax rek naan leader bu nekk fu mu dëkk daal mu liggéey fa dara ba am fa dara loolu mooy euh, base de survie bu gën a leer daal léegi par rapport à ça ñoom ñu nekk leaderu APR est-ce que fu ñu nekkoon liggéey nañ fa lu leen mën a may tey même bu ñu nekkatul au pouvoir bu ñu wootee ni niveau yi si c'est ça la grande question. ci fàttali ay responsable yu mag yu mel ak yeneen responsable yi nga xam ni fësuñu ñoom ñëpp dañu fas yéene na li nga xam ni moom mooy APR. kon ñu yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram àndi ceeg Cheikh ci Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay alaaji Njogu Jeen xibaaru tàggat yaram yi. dañu koy daal di door rek ak basketball lu ñeel lii di afro basket bi Sénégal nag ma nga ci yoon wa di ko waajal bu baax a baax jàppale ni nag euh, équipe nationale góor ñi boobook léegi nag ña ngay tàggatu fii nga xamante ni moo di stadium Marius Ndiaye danañ amal sax li nga xamante ni ay jongante xaritoo seen digg ak ñii di waa fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru août bi ñu daal di dëgmal. Euh, dañ si daal di déglu kenn si joueur Sénégal yi di Babacar Sané ma ngay waxtaane mbirum Afrobasket bi ak li nga xam te daal moom lañ ci daal di séntu ñu déglu ko ci micro Soda Thiam ah, préparation bi nu mu commencé baax na ñu ngi améliorer chaque jour groupe bi ñu ngi miinante am na joueurs yi nga xamante ne nekkoon nañ fi am ne ñu ngi door ñëw ñu ngi essayé ñu miinante suñu biir comme ça ñu mën a ànd booloo ñun ñëpp doon benn ñu mën a jëli ndax ñaari joŋante bu baax ni équipe bi équipe bu suñu biir ñu ànd liggéey instant yi moom boo gisee coach bi ni muy liggéey ñu da ngay xam ne dafa déterminé wu bu baax indi ay joueurs yi nga xamante donte ay xale lañ donte yu bees lañ tamit boo xoolee saa su ñu mel bëgg nañ équipe Sénégal bu mel noonu xam naa coach bi boo xoolee tuuti vision noonu la bëgg a mel so ñun xale yi dañuy ñëw rek jàpp ak mag yi ñu booloo doon benn ñu mën a yóbbu équipe bi ñu mel ni comme ñeneen équipe yi incha allah indi ndam benn nit mënul indi ndam benn Babacar mënul indi ndam mbooloo buñ dajaloo ñooy indi ndam lii suñ ko kon def nañ am cohésion bi nga xamante ne benn chemistry bi nga xamante ne dina tax ñun ñëpp ñu miinante di si afro basket dinañ mën a am ndam bu bëri incha allah. ci wutali jàppale nag équipe nga xamante gu mat a bàyyi xel. moo di Soudan du Sud moom nga xam ba moo amee indépendance am léegi yàggul ñoom nag qualifié ci li nga xam te ne daal moo di Jeux olympiques ni ki démb nag si seen ñaareelu jogante gannaaw ba ñu amee ndam si seen jogante bu njëkk ci les Jeux olympiques ca Paris ñoom waa Soudan du Sud démb dañoo daal di mujj ñàkk seen digg ak ñi nga xam te ni ñoo di waa États-Unis 103 à 86 ñaari équipe yi nag ci fàttali fan yële weesu woon amoon nañu jogante xarito ba benn poñ moo daal doxoon seen diggante États-Unis nag moo ko gagné woon un point euh, d'écart ci lu jëm ba tey ci wàllu euh, Jeux olympiques yi jàpp leen ni euh, tey jii nag danañ wéyal li nga xam te ni daal moo di compétition Euh, fàttali nag démb doomu France bi di yëngu ci wàllum pays di Léo Marchand moom jot na cee ràññeeku jot na gagné ñaari médaille d'or tey ji sax dana sóobuwaat ci yeneen jongante fii rek 9h bu tegale euh, ay simili. leneen li nga xam te daal mën nañ ko waxtaanee ci wàllu euh, xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllu football tefes gi di beach soccer Sénégal moom mi nga xam te ne jël na benn bu dul ñaari yoon di di titre champion d'Afrique dal na qualifié waat ci Coupe d'Afrique des Nations ñu nar kaa amal ci atum ren gi foofu la ca Caire Égypte xam na nag équipe yi nga xam ne daal ñoom ñoo jot a qualifié tirage bi lu yàggul incha allah dinañ ko daal di amal ñoom nag seen bébét mooy fexe ba tegaat seen loxo ci ndam di ñoo di sexo de jàmm Égypte mi dalal xew mi Sénégal mi tee raaya gi équipe yu ci mel ni Maroc Mozambique Tanzanie Malawi nga xamante ni bokkoon nañ ci kan bu mujj bi Ghana mi nga xamante ni gëjoon na ñëw depuis atum 2018 ak invité surprise bi nar a découvrir compétition bi di Mauritanie day wane ni kan ba ñuy amalee ca Égypte du doon lu yomb bu ñu sukkandikoo ci gayndeg Sénégal yi. day gën a am niveau parce que qualification yi boo seetee gis nañ am surprise yu bëri am na équipe yëpp ñëwaat nañ te ñoom boo xoolee ñi ngi gën a def ay moyens pour mën a ñëw ci kaw fi nekk te ñun tam bëgguñu leen xajal kon donc xam nañ nag affaire dina gën euh, mu yokk ci sax ni dëkk bay dalal rek war naa tax ñu waat xel bu baax ci taxawin bi ñu nar a am foofule ci Égypte parce tey Égypte bii ko organisé 2017 moom moo ko organisé dem jël ko jógee si coupe du monde euh, am na loo xamante ne liggéey bëri boo xamante ne mu koy xaar moom ñun aussi ñu boobu nag mooy mooy moo lay permettre tey jii boo xoolee tey Mauritanie bi doo joueur amical moom qualifié na te kenn yaakaaru ko loolu yëpp da lay wane ne équipe bi ñu ngi liggéey ñun aussi xam nañ li ñuy xaar donc dañuy gën a continuer si lancer boobu quoi am na yaakaar bu baax waaw mën na ma ne yomb si ñeneen ñi mais ñun moom chaque jour même esprit la ñuy demee quoi bu ñu demee dañuy jël une parce que coupe bi suñ coupe la quoi coupe kat mi Sénégal la nga war a tuddee Seydina Mandione Laye Diagne parce que sant tool ni amatul équipe bu ndaw ñëpp équipe bu mag leen koo fuy jël day métti ñun li si des mooy dañuy yokkaat suñu liggéey rek xam na ñun lu ñu yor ku ko imposé nañ ko da ngeen ko def incha allah ci nag équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo qualifié ba noppi ñu ngi xaarandi ba léegi ñu joxe date wi ñu nar a tàmbali Coupe d'Afrique des Nations boobule Soda Thiam jërëjëf ñu daal di ko jeexaleeg euh, football ak euh, soccer Champions di ab compétition bi nga xamante ni daal équipe yi dañ koy faral euh, di amal ay tournoi ngir waajal li nga xamante daal moo di ubbite saison yi ci États-Unis nag lañ koy daal di amal Real Madrid moom biig mi ngi doon amal jongante ak ñi di waa AC Milan AC Milan nag moo ko daal di daan benn bal ci dara bit bi nag ki nga xamante ni moom moo ko daal di dugal di doomu Nigéria bi euh, di euh, Chukwueze El Hadji. jaajëf sëñ Cheikh. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. xibaaru aada ak cosaan chronique culture bi dañ ci ànd ak Fama John dal jàmm ñu tàmbalee chronique culture bi le ak wàllu musique Joseph Mendy ñu gën koo xam ci turu Jobit génne single bu bees tuddee ko Najafu muy tekki guerrier artiste bi nag nee na jaar-jaaram ci la inspiré wu dina génn albumam fukki fan ci weeru août gi di ñëw Aminata Ba manjodi bo fotna bukal manci na lool ngal bu bini pumpanye ci bile single artiste rappeur bi di Jobeat di encouragé ndaw yi yëpp rawatina nag ni sokki ci communauté Manjaak ñu daal di xeex ndax li ñu bëgg. ñu leen jaafu mooy guerrier wala koo xam ne dafa pare pour défendre moom daal ku taxawu askan bi wala ku taxawu ay affaire am quoi. Nadia Fou di titre ñeenteelu album bi nga xamante ni moo wax a génn niki fukki fan ci weeru août bi ñu dëgmal parcours musical bi nga xamante ni moom la daal di am loolu nag daal di doy artiste bi ab inspiration. parce que sama parcours musical du lu yomb su ma ñefewutoon wala su ma nekkutoon ñefekat wala Nadia Fou damay bàyyeeku quoi Nadia Fou mooy koo xamante ne bu bàyyeeku day dem il fonce au delà des péripéties pour mën a réaliser ambition parce que sama carrière musicale du yoon boo xamante ne yomb na depuis boobu ba léegi ñu ngi ci y a eu des hauts et des bas dañoo nekk communauté bu exigeant par rapport ak yenn liggéey yi duñ ko gaaw a accepté donc il a fallu man ma dëgërlu sama bopp déjà aussi physiquement pour mën a loolu avancer quoi. Joseph Mendy di dëgg moom nag mu door ab carrière musicale ci at bi nga xamante ne ci la génnee album bu njëkk. man yàlla ci musique la ma xiir mu nekk loo xamante ne du dama ko bëgg bëggantu dama ko bëgg bu baax mu sax sama xol depuis 2016 ba léegi ci laay dox ñaar yi dama ko génnee hlv ay maxi la woon ay EP la woon de six titres bu ci ne ci laa génnee un vrai album bien normé bu tudd Dims Do It Myself ci laa génnee Dims Deluxe beneen version remix bu album bu njëkk bi ci laa ne damay génnee sama quatrième album dédié ko communauté Manjaak bi participer ci horizon musical sénégalaise avec une autre touche. fexe ba musique am di jéggi suñuy frontière nekk nag ambition Jobit. jërëjëf Aminata compagnie théâtre national Daniel albumam bu bees bi mu génne fukki tiitre ak ñeent ñoo ngi ci bokk na ci nag participation ay artistes yu mel ni Kiné Lam Omar Pène Baba Maal Assane Ndiaye ak yeneen séance d'écoute bi ëllëg lay am ca Sorano li lañ leen indiloon mbokk yi dig daj ji ëllëg ak jàmm ci seen chronique culture. Soumari.com Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de bébé Doudoune ak association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen ni may li ci yéenekaay li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf képp ku ñu mus a tudd ci rapport ci réew mi moo xam audit du IGE la mbaa rapport Cour des comptes yi wala rapport OFNAC yi booy ba nga wuti gàllaaj gu dëgër sëriñ bu baax mbaa ñaan gu wér ndax journal la mu bi ñu jox xibaar bi teg na kaso bu rëbës ak i cellule yu nekk ca kaso bu Cap Manuel cellule yooyee danañu leen defaraat fan yi di ñëw ngir ñi ñuy tumal ak jalgate ci rapport yi te muy dëgg xibaar bu dëgg bu journal yu bari ñu xëyandool xëye mooy wàccee gi ñu wàccee Cheikh Dieng ma jiite woon ONAS office national assainissement l'observateur nañu démb la dogal bi wadd président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko faloon directeur général bu ONAS le avril la woon mais soin sulet mu Vox Populi nee nañu ba ñuy jël décision di ko wàccee ca bopp ONAS yëgu ko ndax dafa fekk moom docteur Cheikh Dieng mu doon soog a jóge dafa demoon doon superviser ndoxum taw mañ fa doon ngàcc Le Quotidien nañu moo taxit ngàccaale nañu ko mu ànd ak ndoxum taw yee jàll ca kaniwooy Cheikh Dieng noyé dans les eaux mooy Le Quotidien bi ni njëkk ba dañu wax ne ñetti weer ginnaaw bi ñu ko defee directeur général bu ONAS démb la ko président Diomaye dàq li tax ñu dàq am fu leen yàlla yamul keroog ba muy jël service la mu waxoon mu di caaxaan jeex na fi kenn ci travailleurs yi nee na waxam jooje dafa miti liggéeykat yi ndax dafay mel ne ba mu ñëwagul ci ONAS liggéeykat yi caaxaan lañ fa newoon ñu ne déet na waay mu tegal liggéeykat yi alxatir indi bu metti bi indi leen fa ab système de pointage biométrique travailleurs yi ñoom it defal ko ci bu ca neex bu ñu xëyee xëy si heure pointé ba machine bi gis leen dem mu ànd moom ñibbisi docteur Cheikh Dieng defu ko dafa toogaat juróomi fan doon fa politique ak doon seet nu mu mën a jëlee ay militantu parti démocratique Sénégal gi mu bokkoon yóbbu waa Pastef Tribune bind na incident bu amoon ca Ndar moo tax Ousmane Sonko dàq Cheikh Dieng journal la fa nañu docteur Cheikh Dieng mooy ki ñu njëkk fal folli ko ci nguurug Jomaay Fay Walf Quotidien nañu yëf dafa mel ne ñi ko def directeur général ONAS ba ñu koy def erreur a ñu ko joxee véhicule de fonction jëlu ko ñu jox ko logement de fonction mu delloo ko suur mi xëy di ñu wax bi ko président Diomaye di dàq fan la ko fekk ak lan la ko fekkoon di def teg na ci di ñu wax ne audit mu tàmbale woon ci ONAS moom Cheikh Dieng la ciy génne dañ ko koy nittali ndax du ko fa fekk Diomaye Sonko caaxaan faaxe journal point actu moo ko bind ci xëta bu njëkk ngir wax moom ci wàccee gi ñu wàccee Cheikh Dieng ci ONAS li waral wàccee jamono ministre éducation nationale mi ngi wax ci biir l'observateur ne li premier ministre wax bu ko régime bu bees bi bëggee jëfe in fokk dañu ciy waxtaan ak mboolem ñu ko séq ñu séq ay jéego dem ci journaliser ko histoire waa ji di Alioune Badara Coly moom la xëy di ñu nittali Alioune Badara Coly benn waay bu ñu jàppoon ci coowal drogue 238 kilos drogue ñu sisiroon ci porum Dakar bi ñu ko jàppee tëj ko ci kaso bi ñeenti ginnaaw bi ca la ko libéré paris.com Touba Darou Salam Caro Prestige seen lait de du Doudoune ak association bi lëkkalee assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi li ci yéenekaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye leen ci àndaloon ñi koy gërëm bu baax a baax mbokk yi foofu lañ yem ci xibaar yi ne suñu defuk pàttali ci li ci gënoon fës jafe-jafe amati ak këru roplaan gi di Air Sénégal ay nit ñi waroon tukki dem France bii ñoo tàggatémbe ca aéroport ba léegi demuñu nee nañ oto bi waroon lenge avion bi moo pan ci mujjantal 11h lañ leen wax ci la ñuy départ genn góor gu ñu tëjoon ca kaso bu Jurbel moo fàttu te atteguñ ko tax ba kuréel gii di forum du justiciable di sàkku yoon di gaaw di atte nit ñi ñu xam fu ñu féete. nguur gi taxaw temb ci wàññi accident yu bëri ci tali bi njiitu président Bassirou Diomaye fay fàkku démb ci conseil des ministres nguur gi jël matuwaay yëpp yu war pour karange gu mat sëkk ci tali bi ci ndajeb conseil des ministres boobu bokk na ci li ci gën a fës wàcce gi ñu wàccee Cheikh Dieng gannaaw ñetti weer képp yu mu def ci bopp kër gi di ONAS mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi Amadou Ndiaye ci machine bi Maysa Mbaye ci digital bi ci kanam tuuti seen émission penco waxtaane accident yi as nekk mën a fàggoo ak matuwaay yi ci nguur yi fa yéene jël ci kanam la doon jaajeen jëf ci ànd beeg RFM ñeen ak jàmm association des assureurs maanaam kuréel gi ëmb